leen ndokkeel ci weer wu tedd wi lu ne xadara juma mbooloom yépp daayira bi góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu ñi teew fii te ci xadara bi teew di ci jiital Oustaz Ali di nuyu jombana masha allah Mohamed jombana eh, la ngay def ca kër ga maa ngi koy allah na yàlla yokk yal na yàlla ubbi yàlla aar la ci barke alquran loolu mu ngi nuyu Mouhamed Touré di nuyu eh, Jiggo ak kilifa yi fi teew yëpp di nuyu Malick Konte di nuyu magam di baax jooju di eh, Ousmane Konte moom moo doon tudd tey doomam fële ca këram gi soriwul tuddee na ko Hamza ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla def Hamza Hamza tudd na Ousmane yàlla may ko ay rakk yi bokk ndey ak baay amiin aywa yàlla def ko aarifan billahi wa aarifan min bahri mahabbati cheikh ya rabbi غرفة لا غرقة لا إفاقة بعدها إلى يوم القيامة همزة تربو أم صلاة ndax Seydina Ali ibn Abi Talib moo tuddee Hamza Sayyid Shuhada mooy kilifa ñi martir yi mooy kilifa ñi daan xare ci yoonu yàlla Seydina Ali ibn Abi Talib ba muy ndamoo ba muy puukarowanteeg Muawiyatu bnu Abi Sufyaan waaw loolu la wax ca baytiya daf ne muhammadun innabi axi wa sihri wa hamzatu sayidu shuhadaai ammi wa jaafaru alladi yudhi wa yumsi yatiru ma almalaikatu bnu ummi wa fatimu bintuhu sakani wa irsi manutun laxmuha bi dami wa laxmi sayidna ali bne abi talibin nee ne yéen ñoo yéen a ngi dégg li may wax de yéen nekk fële yéen a ngi dégg waaw kon xaaral euh, jege si leen wala ma yëkkati baat bi jege si leen tuuti Seydina Ali ibn Seydina Ali ibn Abi Talib moom ak Muawiya jot nañu waxante ay kàddu Muawiya doomu Abu Sufyan la Abu Sufyan saxaaba yonent bi la Muawiya saxaaba yonent bi la mhm. Seydina Ali ibn Abi Talib tamit saxaaba yonent bi la waaye doomu bàyyi ti bi la ndax rakk ti bi la moom Seydina Ali mhm. bokk na ca lam doon wax diggante mag Muawiya mu ne man de sant naa yàlla ndax Muhammadun nabi yonent yàlla Muhammad axi mooy sama frère ndax sama baay ak baayam ñoo bokk benn baay wu sihri moom mooy tamit sama goro ndax moom mooma may fatimatu bint muhammadin waaye yemul foofu wa hamzatu sayyidu shuhada yi am mi mu ne hamza mi nga xam ne mooy sang ñi daanu xare ci yoonu yàlla mhm. hamza moomu moom mooy sama baay sayyidna hamza yonent bi defal na ko lu mu defalul kenn ba mu génnee àdduna kàbbar na ci moom lu mat juróom-ñaar fukki kàbbar te kenn ku nekk xam na ne ku génn àdduna ñeenti kàbbar la ñuy kàbbar ci waaye moom mu kàbbar ci naa Hamza eh, ñaar juróom-ñaar fukki kàbbar hmm. ca Uhud Hamza moomu ci ñi gën a tedd ci lislaam la bokk bokk ci ñi yonent bi gën a bëgg gën leen a naw amul dee ci àdduna gu métti daanaka ba yegg ci deewu Hamza ci xolub yem ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba sax ka reyoon Hamza dafa xotti woon biir bi jël res ba daal di ko yëy bañ ko nettalee yonent bu ne kooku moom ajana lay dugg ndax resu Hamza sama baayu Hamza resam du dugg safar lam ko waxee woon noonu la demee wax si wi dafa mujj tuub tuub na ah, ba waaye nag yonent yi mënu ko woon xool ndax su xoolee wax si yu xool Hamza xalaat Hamza mi nga xam ne mooy baayam ak Hamza macha allah ni nekkee woon jàmbaar Euh, xolam na naqari moom yonent bi ba sax def ko daan wax ne kaay féete ma nii su ko féetee kanam mu ne ko féete ma nii ndax bëggul xippi xolam euh, xippi bëtam rek dajeeg euh, dajeeg wax yi waaye nag wax si bi mu tuubee sax moom wax si bi mu tuubee gëmuloon ne yàlla dina ko nangul waaye ba aay alquran bi wàccee inna allaha yaxfiru zunuba jamian man yàlla damay jéggal bàkkaar yépp mm-hmm. mu ne fa la am yaqin fa la am itminaan al qalbi bi anna allaha xafara lahu ci la xam ne yàlla jéggal na ko waaye su nekkoon laaye googu mu ne du gëm sax ne yàlla jéggal na ko moom wax si mm-hmm. merey xamsatu daal di jël res bi daw yi moo tax damay wax gars yi adduna yàgg naa tere di du tey àdduna mhm. mhm. yàgg naa ñaaw ku toll ni bàyyi rasulullahi Hamza mi nga xam ne gaynde gi yàlla la yonent bi tuddee na ko asadullah mhm. doomu aadama rey ko yemul ci rey gi waaye xotti biir bi baqara batnahu mu daal di génnee kabit bi maanaam res bi di ko yëy xam nga ndeka adduna yàgg naa tere waaye Seydina Ali ne man du seen morom ndax Hamzatu sayyidu shuhadaa yi mooy am mii وجعفر الذي يمسي ويدهي يطير مع الملائكة ابن أمي من جعفر من خمنا في موغي نار الملائكة تأجنا كوكو موي سما دوم ندي جعفر دوم أبو طالب لا علي بن أبي طالب دوم أبو طالب لا جبنا ابن أمي آية تمير با نيو بوك مانا بن باي بن الجو سيدنا علي بن أبي طالب بن يمول فوفو وفاطمه بنته سكني وإرسي فاطمه دوم ينتي الله محمد موم موي سما سخنا manuutun laxmuha bi demi wa laxmi mu ne tey yàlla jaxase na sama deret ak deretam moom Fatima mi gën ci bépp jigéen bu yàlla sàkkoon ci kaw suuf mu ne wa sibta ahmadin wala daaya minha fa ayyukumu lahu sahmun ka sahmi mu ne ñaari doomu maanaam ñaari sëtu yéen ci yàlla Muhammad hmm. mooy Hasan ak Huseyn hmm. wala daaya minha ñoom ñooy samay doom jëlee ko ci Fatima mu ne fa ayyukumu lahu sahmun ka sahmi kan moo am cër bi ma am kenn amul cër bi Seydina Ali hmm. ibn moom nag mu dem nag ba ne sabaqtukum ila al islaami turran sabiyan ma balawtu awaana xulmi mu ne yéen maa leen jiitu ci lislaam boobu ba may dugg ci lislaam man xale laa musuma sujuudal xërëm musuma naan sàngara kooku mooy Seydina Ali ibn Abi sax ma wax ko mooy xamsatu gi gi mu mooy ki tuddee euh, tey doomu euh, Ousmane boobu. Hmm. ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla def ko mag. Hmm. yàlla def ko taalibi xaqan. yàlla def ko taalibaay xaqan. ñun tamit ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla def ay jullit xaqan. yàlla def ñu ay tiijaan xaqan. yàlla def ñu ay taalibaay xaqan. yàlla buñ am yàlla buñ fekk safaan bés pencum yàlla amiin yaa rabbi liñ yaakaar ci yàlla yaakaar ko ci yonent yàlla Muhammad yaakaar ko ci Cheikh Tidiane yaakaar ko ci Baye yàlla buñ fekk safaan wa bés pencum amiin yaa rabbi yeggee bés pencum yàlla yàlla nañu yàlla teeru ti bi teeruñu ci Ahmada Tidiane teeruñu Baye teeruñu ndax naka jekk naka naka jekk am na ñoo xam ne yàlla nee na wa bada lahum min allahi ma lam yakun wiɗum yo accu ɗon tan yo waɗ on tan am na ñoo xam ne yàlla nette na ci alquran ne badaa lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun badaa lahum feeñ feeñal na leen maanaam feeñ na ci seen kanam mm-hmm. bañ demee ca yàlla gis nañ fa maalam yakunu yaxtasibuuna loo xam ne yaakaaruñ ko woon mm-hmm. xam nga dara gënul garaaw li am na benn waliyu yàlla lii nii tere na koo nelaw ñeen fukki fan ñeen fukki guddi waliyu yàlla gi nelawul ngir aay alquran bi aaya bi lan la wax mooy wa badaalahum min allahi maalam yakunu yaxtasibuun gaay mm-hmm. bañ ñoo ngi waaxu yaakaar ne nu ne lañ fay fekk hmm. alxuraan ñu fekk fa lañ yaakaarul woon subhaanallah moo tax dañuy wax mën a waaxu xam foo jëma ko gën waaw sooy mën a waaxu xamal fi nga jëm ñun fi ñu jëm oh. yaa ngi dégg de mbir la moo tax il faut ñu góorgóorlu mm-hmm. waaw zaraara tub nu aw fa benn waliyu yàlla la moo ngi jàng côté fajar alxuraan ba yegg ci benn aaya zarni wa man xalaktu wahidan mu daanu xam fa la dee zarni bàyyi ma man yàlla wa man xalaktu ak doomu aadama ba nga xam ne maa ko sàkk wahidan man rek ci ak moom ci biir leer kenn ñetteeluñu yàllaay wax di tëkku doomu aadama bàyyi ma ka nga xam ne maa ci biiru ndeyam man ak moom kese la kenn ñetteeluñu mu ñëw fi wàcce ci àdduna tey di ma fonto zarni wa man xalaktu wahidan zararatu ibnu awfa dafa jàng laaya gi daal di tiit xëm maanaam summeekuwul fa la jaar génn at hmm. moo tax dañuy ñaan ñun li yaakaar ci Baay Ñas te yaakaar ko ci Cheikhu Tijaani yàlla buñ fa fekk safaan ndax walaa yaamanu makrallaahi illal qawmul xaasiruun hmm. kenn du wóolu pexeeg yàlla lu dul ñu perte yi waaye nag gis nga uh, yent yàlla Moussa yàlla def ko ne Moussa hmm. bul wóolu sama pexe donte sa benn tànk baa nga ci ajana beneen baa nga ca bitti am na tànk bu xas dugg ci ajana kay boromam war na am confiance mm-hmm. yàlla na déedéet ba léegi bul wóolu xaaral ba ñaari tànk yi dugg te su mm-hmm. duggee sax <laughs> jarul wóolu ndax sa bàyyi aadama fa la nekkoon suñ bàyyi aadama moom ñaari tànk yëpp ba nga ko woon daa xëy rek yàlla ne ko génnal ci bitti mm-hmm. génn leen yaa ngi dégg de yow sa soxna si génn leen yéen ñaar yëpp موتا بين برم خم خم حكيم لا من بفرض خطيئة وبفرض ذنب من الجنات أخرجت البرايا فكيف وأنت تطمع في دخول إليها بالألوف من الخطايا من بفرض خطيئة بين بكر سبع آدم بين بكر لا تسعجن وبفرض ذنب min al jannati uxriyatil baraya yàlla ne ko aadama mu ne ah mu ne ko buubal sa bagage génn ngir benn bàkkaar te kooku sa baay la de te yonent la moo la ëpp mm-hmm. fa kayfa yow wa anta tatmau fi duxulin ilayha bil ulufi min al nan nga yenoo fi junniy bàkkaar di waaxu nag ci néeg yoo xam ne sa baay benn la defoon ñu génnee ko fa yow nga jublu foofu mm-hmm. kon insha allah li ñu yaakaar ci baay yàlla na ko yàlla déggal amiin suñ demee liñ yaakaar ci Cheikhu Tidiane ak liñ yaakaar ci yonent yàlla Muhammad yàlla na ko yàlla déggal sant nañ yàlla weer wi weer wu màgg la macha allah weer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi nekk sha'nun min shu'unil haqq maanaam mbir la ci mbirug yàlla yi damay wax wa zakkirhum bi ayaamillah alquran moo ne yow Muhammad fàttalil gaa yi bésu yàlla yi bésu yàlla yi ñett lañ hmm. shu'unullahi salaasatun mbiru yàlla yi ñett lañ besi ci aduna dafa am bésu zahir waye dafa am tamit bésu batin motax bay ñess di wax ahlud dunya fi ayaami dunya wa lah fi ayaami lah fa duriba baynahum bisur lahu babun batinu fihi rahma wa zahiru min qibalihi adab mu ñu ñooñu yàlla yi fi ci aduna ñoo ngi dund ci besu yàlla yi mu ñoo ñu aduna ñoo ngi fi ci aduna ñoo ngi dund besu aduna yi danañ jaxasoo nag ñoom ñaar toog bokk sax di lekk bokk sax di naan ci benn place hmm. waaye fekk bés yooyu ñuy dund du benn kii a ngi dund ci bésub yàlla yi kii a ngi dund ci bésub adduna yi hmm. alxuraan ne man maa jël benn barsax jaarale ko seen diggante hmm. baatin bi yërmande la waaye bitti bi mbugal la kii dund bitti bi mooy kii dund bésu zahir yi kooku moo nekk ci bitti kooku ci mbugal la nekk waaye baatin bi yërmande gi nekk kooku mooy kii dund mbiru bésub bësub yàlla yi nag naa xam ñett lañ rek comme bësub adduna yi ñett la rek ndax adduna fii ma mada fatahul muhammalu ghaybun wala kasaati lati anta fiha démb la rek ak tey ak suba yooyu ñooy bësu adduna jeex na ma mada ba passé faata jàll na wala mu amalu gaybun ba nga yaakaar inconnu la ñëwagul ba nga am mooy tey wala kasaatu lati anta fiha léegi nga am nga mën a profité def dara waaye démb passé na xamoo lan la si yàlla di àtt te suba nga am profité ci tey kon ñetti fan yooyu ñooy bésu àdduna waaye bésu yàlla yi tamit ñett lañu zakkirhum bi ayyaamillah comme ni nga xamee ne mbiru yàlla yi ñett lañ hmm. mbiru yàlla lañ mooy shuunul xaqi salaasa hmm. benn shaanu bi xam nga alxuraan ne kullu yawmin huwa fi shaan hmm. bés bu nekk man maa ngi ci mbir loolu la yàlla wax bés bu nekk firiwul bés yu bëri waaye ñetti bés la rek ñetti bés yooyu bés bu nekk daa am mbiram mbir bu jëkk bi xam nga yàlla moom ba mu fi nekkee bés amul woon kon yàlla kenn du ko jox bés ki ñuy jox bés mooy yonent yàlla muhammad buru te jëlli zaati awalu abidin wa wasitatul ahwari fi basti wal xabd yàlla ba fi nekkee moom kese amul woon bés waaye première te jëlli bi mu def mooy mu def te jëlli rasulullahi ne ci mooy première bés boobu bàyyi ne buru te jëlli zaati moom mooy buru te jëlli zaati mooy barazat minha awalan hadratul muxtaari ayna lihaiha fahayahaha ma yàlla ba mu fi nekkee li njëkk a fàq génne ko ci moom te jël lii bi mu njëkk a def mooy manifestation bi mu njëkk a def moom yàlla ba lu dul yàlla mën taxaw ne man maa ngi ni duma yàlla loolu yoon ci yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam booba nag foofa jamu la du farku ndax dara amagul woon lu dul yàlla ak yonent bi rek moo tax bàyyi mi xam yonent bi te di ko tàgge foofu te kenn tàgge tàggewul moo ne yonent bi fa innaka jamun fa innaki la wax sax fa innaki jamun haysu anti shuunuhu وقد جئت فردا دون شكل مماثل فإنك يو يمتي على محمد موي حقيقة المحمدية فإنك جمع يو دجنغا موي لب nga won ay su ante shubu no ba nga nekké mbirub lepp kon yonent bi mo nonu sha'nu la bañes mo ngi lay won na yonent bi sha'nu min shu'unil haqqi comme ni nga xamee ne cheikhu tidiani chaanul min chuunil xaqi chaanul xaqi ramzul kawn faydullahi aynullahi cheikhu tidiani chaanu la ndax bàyyi moo ne chaanul xaqi mooy Cheikhu Tidiane shaanu la ci shaanu yàlla yi shaanul xaqi ramzul kawni mooy junjug mbindeef mi faydullaahi mooy faydug yàlla gi aynullaahi mooy jëmmug yàlla gi sax moo tax bàyyi fa muy waxee kenn du fa waxee wala yàlla yi ñemewuñ yegg fii bàyyi di waxee ah. bàyyi day wax ci xaqiqatul muhammadiya ci azaliyatoom ba ci abadiyatoom te ku xam luy azaliya xam azaliya mooy abadiya ku xam luy abadiya xam abadiya mooy azaliya ndax azaliya mooy amul mooy loo xam ne amul fu mu tàmbale abadiya mooy loo xam ne amul fu mu soo xamee lu amul fu mu tàmbale da nga xam ne li amul fu mu tàmbale mooy li amul fu yem soo xamee lu amul fu mu yem da nga xam ne li amul fu yem mooy li amul fu mu tàmbale ndax lépp lu amul fu mu mooy li amul fu mu amul fu mu mooy li amul fu mu lii nag wali yàlla benn ci wali yi gëlëm na ci ci biir xaqiqatul muhammadiya bàyyi nag dugg ci xuus ci wax ko leeral ko ne min azalin li abadi min abadin li azali iradatul xaqi azal fa kaana xaysu nam jësal kon ndeke bàyyi moo xam géej googu moo xam xaqatul muhammad yi ndax moo doon dund ak yonant bi balaa dara bàyyi ba mu waxee fii def ne kallat xawaatirul wali an darsihi islam yamal kallat lott na xawaatirul wali xaatirul waliyu gi waliyu gi xaataram lott na pour yegg lan mooy azaliyatu alxaqiqatil muhammadiyatu ak lan mooy abadiyatu alxaqiqatil muhammadiyatu waliyu yàlla ngi xaatiram lott na fi an darki si jot ko islam yanal ndax jotul maqaama gi dund ko hmm. man mi ko dund man maa ko war a wax moo tax moom moom moom moom bàyyi ñes radiallahu anhu hmm. nee na moom ak yonent bi la woon booba dara amagul ahbabtuhu dama koo bëgg hmm. hatta araani kuntu ba ma fekk man maay man maay yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. kon fu gàmmu jotee ñun ñu jël suñu bagage jëm ca Kaolack hmm. kenn duñu laaj lu tax ngeen di jëm Kaolack ndax dañuy dem Kaolack pour fàttaliku kooka nga xam ne nee dafa bëgg yonent bi hatta araani kuntu ba ma xool sama bopp fekk man maay yonent yàlla Muhammad wa rabbi booba yàlla lam yaxluq makaanan wala waxta yàlla sàkkagul maanaa place sàkkagul maanaa waxtu dindi loolu yàlla sàkkagul waxtu sàkkagul place booba man maa ngi bëgg yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga kon su nekkee da ngaa bëgg a màggal ba su judd yonente bi soo maandoo hmm. soo jëlee sa saag jëmal ci ki ko bëggoon ba mu xool fekk mooy jëmm yonente bi yonente bi di jëmmam boobu yàlla sàkkagul place sàkkagul jamono soo jógee di gàmm ji soo maandoo na nga jëm ca place waa jay wax ne fa maa xatabu fi sharqi wal garbi fatfadan ila makkatin illa li sumbi sasaar kenn dagul àll jëm màkka lu dul yaa ngi wuti sama xet moom ngay wuti walim naa lu waral loolu fa ay lu tax ba loolu du am fa ay nil yowma ay ni muhammadin ndax man say naa ci yonent ba sama jëmm mooy jëmm yem ci yàlla muhammad sarasiruhu fii ay kañi warwaay mu ne see keroog yonent bi rañaan na dugg ci sama sama jëmm man bàyyi ñes ci sama biir yaram kon su nekkee ne da jël sa bagage di dem gàmmu نقدم تواجي وحنا قد شاء في السودان والبيدان أني مهب المستقبل قد شاء تسارونا سيونا في السودان تبير نيوني والبيدان أني ويخ سيونا فن أني من ميشا إبراهيم يسمو هب المستقبل ما شرط يرتي الله محمد صلى الله عليه وسلم سو جري سبقا في دم قام سو مانو لنقدم تواجي وحن متى في التراب تحدثوا laqad kaana yanwi lxayra law kaana muxsira mm-hmm. waaye ujaawiru rabban waaxidan mutafaddilan li yarzu ubaydan kulla ma fihi xayara xayaati rumuuzun kulluha wa ishaaratun mm-hmm. yufassaru mahna dalika alqabru buusira ñu bàyyi nee ne suñ ma suulee ci suuf mm-hmm. booy léegi danañ waxtaan ne ah bëggoon na lu baax de daan na yéene lu baax donte def cee gàtt gàttul law kaana muxsira mu ne maa ngi ñaan yàlla bépp jàmm bu taxaw ci sama bàmmeel bi yàlla may ko nuy gëlëm nuy gëlëm loo xolam hmm. ah xayaat yi man sama dund nag pour ngeen xam ko dana jafe lool ndax rumuusun kulluha lépp junj la hmm. xam nga junj bokkul ak leeral hmm. arab dañu am lu ñu tuddee ramzu am loo xam ne loolu leeral la waaye man sama junj du du leeral lépp possible la xayaati rumuusun kulluha wa ishaara mu ne junj yooyu nag du fii lañ koy leeral suñ demee ba bés pencam yàlla ba ñu deqalaat bàmmeel ya yu fassaru mahma zalika al qabru buusira booba la ñuy xam suñ deqalee bàmmeel ya bés penc mi yàlla yàlla dajale awwalin ak aaxirin nay boobu la ñuy xam man maay kan kon kooku mooy kii naar bi di wax iqdun tanazama min mahamidi ahmadin wa hudan takawwana kay yaraahu raaj iqdun mooy nos la caq la bàyyi ños dafa mel ni caq boo xam ne tanazama dafa nosu min ma min mahamidi ahmadi ci cant yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bi dafa am ay hamd ci cantam yooyu maanaam la Baye Niass radiyallahu anhu am maanaam caqa goo xam ne dañ ko nos ci cant bi yàlla Muhammad hudan Baye Niass njub la te kaw woon goo xam ne dafa formé wu nekk jëmm nit nga koy xool muy xool muy añ di lekk di naan comme yow te fekke njub la bu yàlla sàkk mu nekk jëmm bu taxaw te yaraahu raa yi ngir kuy gis mën ko gis soo bëggee xam kuy bàyyi mooy wa xayante sababa min fuyuudil Mustafa fastaqbalathu basa basairu suadan mooy wa xayantaw boo xam ne te sababa dafa sotteeku baawaan min fuyuudil Mustafa ci faydu yonti yàlla Muhammad ndax def ne wa dalika al faydu min rabbi wa manshauhu xaqiqatu lmustafa aljaali amal laib mu ne faydu gii ci yàlla la jóge waaye moo ngi fàqee ko encore ci yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Baye Niass taw la bu ba bës ci ku sotti wala ngaan jëlee ko min fuyudil Mustafa ci fay dugg yem ci yàlla Muhammad waaw wa fastaqbalatu daal di ko nag aw mhm. fastaqbalatu accepté ko fastaqbalatu gàttandu ko gàttandu taw googu basaayiru suadaay basaayiru mooy gis-gis ak suadaay ñu texe ñi depuis ci azal mhm. mooy ñu baax ni mhm. moo tax Baye Niass radiyallahu anhu foo fekk ku baax ci adduna bi tey sànq place boo ñëw te gën a nekk ku baax ka fa gën a nekk sang <laughs> mhm. da ngay fekk ci bàyyi radiyallahu lañ askanoo loolu Cheikh Ibrahima Sali moo ko wax ci ay xasidaam bu gudd bu gudd mhm. macha allah muy wax ne Baye Niass radiyallahu anhu mhm. fi kulli qutrin qad tafaahu musawadun ma darra zalika sawtu azbaxa yasrafu fi kulli qutrin ci bépp bépp gox rek qad tafaahu tam ko nafa bàyyi musawadun koo xam ne dañ kaa eh, dañ kaa sanguloo kañ sanguloo ca ca ca gox googa kañ jël def ko muy kilifa ci gox googu soo ñëwee da nga fekk ci Baye Niass radiyallahu anhu lay askan mu ne maa dara zalika sawtu asbaqa yasrafu mu ne ku yemba di su taxawee fale nag di yuuxu di wax leneen mu ne loolu di wàññi dara ci mayu Cheikh Ibrahim Niass mu ne daa neex a topp ndax maa zaada cheikhuka fi shariati zarratan كلا ولا مما تقرر ينسف ما زاد الشيخ فسرين غاي اسكن شي موم شيخ ابراهيم أمم. ليلي غا ما شاء الله بروم خام خام ولا نيت نيت رك نياي يالا ماي كو فاتو mu jël mbir yi yokk ci la ca bokkul ngir bànneexu bakkan oh. ak bëgg tur wala bëgg cangeen mm. waaye Baay Ñas ak ni fattu bi réyee ak ni màggee mm. ma zaada cheikhuka fi shariati zarratan mm. Cheikh Ibrahim Saali nee ne Baay Ñas yokkul ci sharia bi benn pepp atom kalla wala mimma taqarrara yansahu déedéet mooy li sax tax ci sharia amul lenn lu ci effacé lépp def ko dëggal topp rek tànk bi yonent yàlla Muhammad mu ne ila saara xayru naasi surtout waraahu wa in xalla yawman fal masiru bayin yonent bi su doxee rek ma dox su taxawee ma taxaw kenn gën ko respecté charia nee na sax wa saana ilahi nafsi dahra la ura amiru ila ma laysa fi shari jaiza ma ni yàlla wattu na sama bakkan man baaj sama bakkan doomu sax noot ba ma def li yàlla tere hmm. laa ura duñ ma gis mukk am yi li ma jàng ila ma laysa fi shari jaiza loo xam ne yàlla daganalu ko ci shari moom la doon sëriñ maa yi di wax ci ziyaara bi passé rek mu ne ñu leen góor góorlu maanaam jéem a nuroog Baye hmm. ci Baye Niass la ñuy askanal hmm. comme que sëriñ bi musul jàng sharia yow sooy askanal ci moom te nga ne mbubbam nga sol moom ngay roy na nga fexe jéem a mel ni moom nga jéem a xeex ak sa bakkan bàyyi ñas radiallahu anhu si cheikh ibrahim sali wax na ci moom ba ne li ma gën a yéem mooy nasharat fadailahu nasimu wa abtarat amdahahu dunia bi ma la yumsaxu maanaam ba bàyyi ñas turam ak taggam ak ngëneelam nasharat wesaare na fadailahu ngëneelam an nasim ngelawum nasim ngelaw bi nga xam ne oxygène bi nga xam ne moom la ñu nooyi moo ngi fu ne ci adduna bi suy dox rek moo ngi doxal ngëneelu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass wa abtarat amdaaxuhu dunia maanaam adduna bi tey li ko xeeñal li ko parfumé ba bam ba mu xeeñ mooy tagg ak Mawlana Cheikh Ibrahim ci nag bi maa laa yen saxu loo xam bi taggee ko loo xam ne wax yu nekk dëgg yu cadre yu placé wu ànd ak charia ànd ak xaqiqa te jamono du dem ba kàddu yooyu musa effacé mm-hmm. kon nag alhamdulillahi ñoo ngi sant yàlla maa ngi publier barki démb rek benn wax ci whatsapp bi di wax ne l'islam maanaam li ko tax a jóg daanaka mooy tasawuf waaye soo xoolee tasawufu dëgg dëgg da ngay fekk li ko tax a jóg mooy tariqa tijaani da ngay soo xoolee tariqa tijaani da ngay fekk li ko tax a jóg dëgg dëgg mooy faydu Cheikh Ibrahim Niass ma ne al islaamu maanaam at tasawuf huwa lubbu al islam walakin tariqata tijaniya hiya lubb tasawuf walakin al fayda hiya lubb a tijaniya waaw ndax li ngay l'islam indi na macha allah julli ay woor sarax génne zakat dem aji màkka waaye yàlla namul ci loolu mouvement bi kese ci wàllum zahir julli bi kese ngay sujud di ruku yàllaa la ko digal waaye du loolu kese la namm ci loolu dafa am lu mu bëgg nga comprendre ko ci biir julli gi noonu tamit zakat bi noonu tamit aji màkka gi ñoo ngi jàng sariya téere yi da nga jàng téere yi farataay julli dañ la jàngal ponk yi aj waaye farataay julli yooyu mu lay jàngal doo doo jàng mukk ci biir julli ba nga gis téere bi jàngal la luy xusu mooy ragal yàlla ragal yàlla bi téere bi du la ko jàngal nooy ragale yàlla déedéet waaye dana la jàngal farataay julli jàngal la ngeneen bi soo bëggee am sifa googu sifa ragalu yàlla da ngay jokkoo góoru yàlla yi ñu tegtal la yoon booy jaar ba nga am xusu góob téere bi dana la jàngal luy farataay julli waaye du la jàngal al muraqaba bayna al abdi fuugloo yàlla maanaam branche bi jaar sa digganteeg sa borom macha allah ba doo mus fàtte yàlla doo mus a jeng walis yàlla loolu du téere bi moo la koy jàngal waaye ki la koy jàngal nitu yàlla lay doon ci mutasawifin kon l'islam soo xoolee dax bi ak li ko tax a jóg mooy tasawuf mooy sufisme waaye tasawuf soo xoolee li ko tax a jóg dëgg da ngay fekk tariqa tijaaniya te gis nga ni yàlla defee mbir mi mm-hmm. tariqa tijaaniya bi mu wàccee ba léegi mm-hmm. macha allah gisuñu benn tariqa wàcc waaw tariqa gisuñu benn tariqa wàcc euh, ginnaaw tariqa tijaaniya dafa mel ni dafa ñëwoon pour motal tariqa yi comme ni Cheikhu Tidiane motalee wëli yàlla yi ci kaw suuf ndax Cheikhu Tidiane ne dafa ñëw nee na ni yonent bi nekkee xaatimu nubuwati man noonu laa nekkee xaatimu wilaayati yonent bi moo matal yonent yi man mi tamit maa motal wolu yàlla mhm. ñu ne nag attention motal gi dafa am dañoo nuro waaye du benn ndax moom Cheikh Tidiane waxul wali du ñëw ginnaaw mhm. waaye dafa bëgg a wax rek maqaama wilaaya gi gën a rëy ci maqaama yi nga xam ne kenn du mën a jaar diggante borom maqaama googu ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla may na ko ko moom moom Cheikh Tidiane kon ba àdduna xëy jeex wali bu ñëw rek yaa ngi ci ron tànk Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane tariqam googu soo ko xoolee mu tënk ko استغفر الله تخليلا صلاة الفاتحة تحليلا لا إله إلا الله تجليلا استغفر الله موي رخصو موي سانغو صلاة الفاتحة موي سولو سو سانغو سولو دا ngay def تجلي فين موي لا إله إلا الله موتاخ شيخ حسن دم دان في ألف لام ميم دي واخ سو بوغي نوبلو دا ngay واخ ألف التخلي ولا متحلي بمتجلي ألف التخلي ألف بداية في دا ngay ويتي دول يالله وا موي دا سانغو سيت موي استغفر الله laam bi ñëw di laamu taxalli mu taaru mooy solu kenn solwul lu gën julli ci yoon ci yàlla muhammad ndaxte kenn mënul yegg pay bi yàlla gi te jaaroo ci julli ci yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi nga yow nag miim bi mii mu tëjëli mii mu feeñ ci pay bi yàlla gi ndax naka jekk soo nekkoon ci tool yi di bay ba ñu la buur bi de moo ngi lay laaj laajte président ngi lay woo wala yu mel noonu soo ñëwee sa kër li ngay njëkk a xalaat mooy na sangu ba set mooy solu yëre yu gën a rafet soo soloo li ngay xalaat mooy nga doog a dem nag buur bi gis la nga gis ko kon nag yàlla daawoo ñi ñëpp ndax def na fa firru ilallaahi daw leen jëm ci yàlla Cheikhu Tidiane fekk nag nit ñi dañoo tilim dafa mel ni ñu nekkoon ca tool ya di bay tool gi nag mooy adduna bi maanaa ñuy liggéeyal adduna yàlla woote na kaay leen bañ ñëwee Cheikhu Tidiane leen balaa ngeen def dara sangu ji leen jël leen ak mooy saabu mooy gën saabu yi ñu sangu لني صلوا ما جلتش يمتي على محمد صلى الله عليه وسلم إذا أردت نك تجلي لا إله إلا الله ما تباي بمو أدي معك دنجل موح يبتي يب وحليتني بعد التخلي تفضلا وحيث التجلي كان بالعقل مزهلا فسبحان من أعرى وألبس زائرا وأتحف بالمعمول سيبا ما ما أرمل من بينس أرمل ما شاء الله ما شانغاي أرمل بي دي وحق يالله di wax waxallaytani baada taxalli tafaddulan maanaam wéetal nga ma ci lu dul yow taaral nga ma ci sa bopp waxay su tajalli kaana bil aqli muzhida soo defee tajalli rek sama xel daal di wedan sama xel daal di gëlëm wa subhaana man aara bàyyi ñu ne sellal naa sellal nag soo ko xamee rek mooy effacé naa lu dul yàlla wa subhaana sellal naa man aara koo xam ne def ma wéetal ci lu dul moom wa albasa mu sol ma jëmmam ji zairan may ziyaara ziyaara may dugg ci pay bi lay فسبحان من أعرى وألبس زائرا وأتحف بالمعمول سيبا مرسلا ginnaaw li mu may wala ma doon ut te dafa nekk waa mi buy sotteeku amul fu mu tàmbale amul fu mu yem mooy albaqaawu baadal fanaa'i fillah mu am baqaawu ginnaaw bi mu amee fanaawu ci jëmmub yàlla kon euh, ndeke tariqa tijaani moo ngi noonu moom mooy lubbu ak tasawuf mm. waaye lan mooy lubbu ak tariqati mooy faydu bi kon ñun fi ñu jógee dafa sori mhm. ñu ñëw ba tey ñoo ngi ci faydu bi fi ñu jaar état bi ñu jaar masha allah mhm. te yàlla mënoon nañu see génnee ndax am na ñoo xam ne ay jullit lañ duñu ay tijaan mhm. am na ñoo xam ne ay tijaan lañ duñu ay jullit duñu ay euh, duñu ay euh, taalibe baay waaw bépp tijaan jullit bépp taalibe baay tijaan waaye nit man naa nekk jullit doo nekk tijaan nit mën naa nekk tijaan doo nekk taalibe baay ñun ñu nekk lépp te zaakal jida laa zaala maxsuusan bihi qawmun hum ulil ardi gaysun wa jida ah. la woykat ba waxoon ne zaakal may yooyu taw taw googa hmm. taw googu taw jëlee ko ci péeru yàlla gu sell gi jaarale ko ci bàyyi yàlla jël taw gu waame googu gu ñu tuddee faydu hmm. muy sotteeku dofteeku jëlee ko ci péeru yàlla gu sell gi ak nim bëree fa muy jóge du jeex te fa muy jëm du fees loolu hmm. yëpp am nañu yàlla seppi bokkuñu si waaye woykat bi ne zakkal jidaa mooy taw googu laa zaala maxsuusan bihi du dañ mukk dañ koo féetale qawmun mooy naaibul faayil ñeel maxsuusan bi ndax maxsuusan ismul mafuul la ismul mafuul day am naaibul faayil mu ne taw googu laa zaala maxsuusan bii du dañ mukk ñoo ngi ko jagleel qawmun ay nit mooy taaliba yi qawmun ay nit yoo xam ne humu lil ardi gaysun wa jidaar ñooñu ramm lañ ñeel réew mi kon mën a ramm tey réew mi mën a ramm adduna bi ndax ñoom seen làmmiñ mooy làmmiñu yàlla seen loxo mooy loxol yàlla seen tànk mooy tànk yàlla ndax hadis bi nee doomu aadama bi di dañ bi ma jege ci naafila ba ma bëgg ko su ma ko bëggee nekkaat maanaam ma nekk tànk wa ma nekk loxo wa ma nekk tànk wa muy doxee ma nekk loxo wa muy téyee hadis bee ko wax kuntu yadahu lati yabtishu biha ma nekkaat loxo ba muy téyee warijlahu lati yamshi biha ma nekkaat tànk wa muy doxee maanaam usnahu lati yasma'u biha nopp ga muy déggee ma nekkaat ko ma nekkaat bët ya muy gisee yàlla su nekkaatee sa nopp nekkaat sa bët nekkaat sa tànk nekkaat sa loxo mooy fir na yow nekkatoo fa moo xamee kon su jafe-jafe amee solution bi moo ngi ci bàyyi ñes ak ci taal bi bàyyi boobaa parce que ñoom ñooy xalifa yàlla ci kaw suuf su ñaanee rek maanaam lépp macha allah daal di rek la ñoo ngi ñaan yàlla li bàyyi waxoon bi fadlika rabbi xaqiqi nasra ajilan faqad balaga saydu zuba faljudaji bàyyi ñes ne yow yàlla bi fadlika rabbi maa ngi lay ñaan ci sa ngeneel xaq mm-hmm. ki nasra ajira indil ndimbal dañ ngay ñaan nga may ñu ndimbal ndax fi ñu toll nii faqat balaga saydu zuba mooy mbir mi yegg na fay olof di wax caaf xam na oh. olof su ne caaf xam na rek mooy lépp yàqu na mooy mbir maa ngi waaj a yegg foofu mm-hmm. faltu daari ci bàyyi ñes na ne yow yàlla dabaatalal xeetu yoon ci yàlla Muhammad sa kon ndekete ñaanu bàyyi moo tax ba léegi adduna baa ngi réglé gaalug mbindeef mi yàlla gi gaalug mbindeef mi yàlla gi ci biir cinq océans yi soo gisee mu réglé jaar yoon rek dafa am ku ko kondiir mooy saanu bu mujj gi ci saanu yi saanu yàlla yi comme bés yi ñetti bés la bésub yàlla yi te jëlli gu njëkk gi mooy bi mu def ci ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaareel gi ñaareelu fan gi mooy te jëlli bi yonent yàlla muhammad def ba alamul wilayati na génn allazi xatama nubuwata huwa allazi fataha wilayata ki nga xam ne moo tëj nubuwa mooy yonent yi kooku moo ubbi baabul wilayati moo ubbi wilayati ndax yonent bi Euh, dafa dafa génn àdduna rek maanaam te jëlli wilaaya daal di feeñ te moo fiy des ba bés pencum yàlla moo tax feeñukaay yi ñett la rek maanaam yàlla gi wala yonent gi wala wilaaya gi beneen amul loo fi gis rek lu màgg lu rëy imaam nekk yàlla loolu moom yàlla féetee woon na ko mooy uluhiya ginnaaw gi amul lu màgg ba passé nubuwa mooy nekk yonent gi loolu yonent yàlla Muhammad jël na garaat ginnaaw gi wilaaya rek a des wilaaya nag kenn mënu koo tënk fenn te kenn amul màndarga wali yu amul màndarga danga gis ku toog ci mbalit mi di lekk xaj bi te fekkee wali yàlla hmm. yonent bi nee na rubba mat fu il baa bi law aqsama alallaahi la abar hmm. bari na koy dajeel ci bunt doo ko wax may ma ma jàll da nga koy puus bu ma ko ndax nit ñàkkee fayda sa bët hmm. waaye law aqsama alallaahi la abar su ne yàlla maa ngi lay ñaan nga waddal asamaan bi yàlla waddal ñooñu ñoo ngi ci kaw suuf kon wilaaya amul màndarga wilaaya amul màndarga xam waliyu xam yàlla moo ko gën a yomb mhm. boobu yàlla neen xam yàlla moo gën a yomb xam waliyu ndax allahu tabaraka wa taala jëllat kamalatu maanaam matam yi feeñ na foo gestu rek da nga gis matug yàlla gi moom mooy xayul xayum xayul mhm. xayum a ngi nii gis nga de xayu mooy ku dund alxayum moo mooy ku sax koo xam ne du fi mus deñ macha allah lu ne rek wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid abul atahiyati ne lahu fi kulli shay'in lu ne rek lahu ayatun soo ko xoolee dañ fa fekk kéemtaan tadullu ala annahu alwahid buy tegtale na yàlla kenn moo tax wilaaya nag mooy bu mujj gi mooy aaxiru mazharin leneen dootul ñëw yonent bi dootul yonent ñëw fii ba bés pencum yàlla isa bu wàccaatee mujjanteelu jamono isa wali yàlla lay nekk waaye du nekk du nekk yonent moo tax Baay Ñas nee na su wàccee moo ngi ci sama poos Isa moo ngi ci sama poos mm. su ma ko génnee rek mu ñëw su ma ko génnee wul du génn xam nga moo ngi ci sama poos mooy lan mm. mooy waliyu la te waliyu yàlla yëpp maa ngi leen dëxëñ dugal leen sama poos oh. xamul waliyu yàlla bu génn poos ma Cheikh Ibrahima <laughs> wax bee bëri rek daa yi ñooy wax rek ah. yàlla ñoo ngi ci poos Baay Ñas te ña fa nekk xam nañ seen taalibe yooyu dof dof rek waaye fa nekk ci poos ñi bàyyi dëxëñ ci poos ñoom xam nañ waaw moo tax nag bàyyi léeg-léeg bàyyi bàyyi mooy mag ji mën na gis gaynde gi daw doom bi ñëw di ruux gaynde gi loolu dañ ko gis waaye doom ji xale la xamul moo tax taalibee rek kenn fi nekk di wax waaye sëriñ yi xam nañ lépp ñoo ngi ne nem ndax ñoo ngi ci poos Mawlana Cheikh Ibrahima ah. su nekkee ne Isa moo ngi ci poos bi kay Samba ak Demba kay xam nga xëy nañ ci poos <laughs> bi Isa Isa su nekkee ci poos yam ci yàlla ko poos Mawlana Cheikh Ibrahima Niass xamal ne koo tuddati xëy na ca poos ñëpp ñoo ngi kon toujours dañu war a xam ñun li ñu am waxi bu mu bëri mukk ba nga yaakaar ne leneen la du dara eh. li xew mooy li xew rek eh. mooy li nga yëg rek <laughs> loolu rek moo fi xew bàyyi rek a fi nekk dem moo fi nekk tey moo fi nekk ba abada <laughs> te xoolal doxin wi rek soo xoolee doxin wi rek da xam ne noonu la rek doxin wi nii rek la mën a doxee toogal ne nem rek bul ñee kenn bul yëngatu faale kenn xamal ne mbir maa ngi ci loxol Baye Niass Baye Niass si ñu fa jóge ba abadan kon moo tax ñu suñ jëlee suñ bagage rek foofu lañ jëm ah. waaw wala boo waxoon nag mu ne maanaam macha allah fukki ëmb yu ñu ëmbandoo ci biir fukki at jëm ci benn place mm. maanaam ëmb fukki ëmb yu ñu ëmbandoo mm. ci biir fukki at maanaam fukki nit la waxoon sax mu mm. ne fukki nit yu ëmb fukki ëmb ci biir fukki at di jëm ci benn place mu ne fañ dem dëggaa fa ne mu ne fukki maanaam daan jot muy gis nit ñi di ëmb seen i bagage ci fukki dëkk fukki nit li ëmb seen fukk seen fukki ëmb ci fukki dëkk jëm ci benn dëkk mm-hmm. mu ne fañ jëm dëkk la waaw suñu benn maama ko wax li muy firi mooy mm-hmm. saa bu gàmmu jotee rek mm-hmm. macha allah nga gis euh, gaa yëpp fu nekk rek mooy na ma leen nuyoo woon gàmmu ga passé la naar bi waxoon salaamun ka ijmaalil muhibbina sayrahum ila baabi daari shirafi min kulli mawdu maa ngi leen di nuyu nuyu nuyoo goo xam ne hmm. moo ngi mel ni pression bi taalee bàyyi ñes yi di am su gàmmu jotee nañu yàkkamtee ah. maanaam mooy mooy gi ñuy yëg ci seen i yaram ne gàmmu jot na ñoo ngi war a dem ci bàyyi ñes hmm. maanaam li ñuy sentir ci mbëggeel ak cofeel jëm kaw la mu ne maa ngi leen di nuyu nuyoo bu màggee nu loolu loolu ñu yëg noonu ci seen xol te min kulli di fekk ñoo ngi jógee ci bépp place fu ne rek fi mu ne nii soo demee Medina Baye soo soo duggee si jumaa ji da nga yaakaar ñu weex ñi ñoo ëpp nit ñu ñuul ñi nga xam ne ñi ñu weex ñi ñàkk ñu fayda ñàkk ñu xam-xam ñàkk ñu alal am nañ alal am nañ xam-xam te ñàkk ñu fayda su ñëwee si nit ku ñuul rek ne yow la xam nga rek léeg-léeg sax da gis yeneen jotaay ñu dul pay bi mhm. am benn nit wala ñaari nit wala ñett nit ñu weex ñu sirax mhm. waaye ñun bu nekk nii ñun bu ñett nit ñaari nit hmm. Eh, ñun soo demee foofu Medina Baye da nga gis ne daanaka ñu weex ñi sax ñu ëpp ñu ah, loolu tawfiq yàlla la nekkul ne dañu ndamoo ñu weex ñi ñu weex ñi ñoo ñëw di ñu ndamoo ñu parce que bàyyi ña saki waa nit la waaye ku weex borom xam-xam wali yàlla chérif bësal na ko tànkam rootal na ko ndaalam ah. kon amul soxla ci nit ku weex nit ku weex ki moo am ci moom soxla bu njëkk bi soo daan jàng alquran mu neex ñu ne est-ce que <laughs> xanaa kii Mauritanie la jàngee waaw ah, Mauritanie la jànge bàyyi ne dana soppeeku soo doon wax xam-xam ñu ne hee kii xanaa ca réew arab yooyu jóge bàyyi ñes ne dana dana jeex waaw <laughs> ah, dan maa ngi fii du ma jàngee ci kenn du ut ci kenn lenn sama bàyyi rek moo ma jàngal xam nga loolu rek doy na kéemaan koo xam ne senegal ba mu ma ma wax dem na ci benn daara oh. ci bàyyam kese loolu bàyyi ñes rek la te moo room ñëpp ci xam kooku mooy suñu sëriñ ñoo ngi ciy sant yàlla alhamdulilah euh, ñoo ngi waaj pour dem ca gàmmo ga alhamdulilah yi dañuy dem comme niñ daan def rek euh, ziyaare Mawlana Cheikh Ibrahima Ñas moo ñu yëkkati suñu yeggee ci Baye Ñas dañ ko dañ koy wax rek li ko misir yi waxoon misir yi xam nga naar la koo xam ne bu am fulla la bu bëgg Baye Ñas man dama ko ñe ba dencal ko mbëggeel koo xam ne daanaka dencal moo ko kenn Ah, ndax nim mel ci Baye Niass waa ah, xam nga ku taxaw di dund nee na man su may dee imma min maatamulaana ila madina wa imma min madina ila maatamula su may dee ëllëg xam fu may dee mooy damaa jóge maatamulaan sama dëkk Mauritanie di dem Madina Baye wala maa ngi jóge Madina Baye di dem diggante bi lii mu wax ko avant moo dee ko répété di nit ñi dañ ko doon répété avant moo dund imma min maatamulaana ila madina wa imma min madina ila maatamulaan far yàlla def mu gunge Baye Niass Baye di dem Londres mu jóge foofu di ñibbi Matam Moulaan ci ci ginnaaw Ndar 33 kilomètres foofu la génn génne ak ah. xam nga macha allah mbir mi mbirum yàlla la yàllaa ko moom dafa la bëgg a wax rek moom du mus a teggeeku ci nekk taalibe Baay loolu rek la la bëgg a dund ba mu xëy dee noonu tamit ñun tamit loolu la ñaan oh. misri yi dafa ñëw ci bàyyi ne ko ataytuka yaa mawlaaya bil mi wal amsi wa maaliya min shay'in siwaakum ila ramsi ah. dañuy def ci bàyyi rek ñu wax lii li misri wax ataytuka yaa mawlaaya yow sama sang bi ñëw naa ci yow hmm. ñëw naa ci fil mi tey hmm. wal si ak démb démb ak tey sama démb ak tey yaa ko moom jox naa la ko wa maaliya min shay'in siwaakum ila ramsi awma leneen lu dul yow min shay siwa ko def ila rams ba ma dugg ci bàmmeel xaw ma kenn ku dul yow yow bàyyi ñes wa ma liya fi lyawmi almuammali gayrukum uxillu lakum bilqalbi fiihi wa binnafsi aw ma lenn lu ma yaakaar ci adduna lu dul yow bàyyi maa ngi lay bëgg bil qalbi ak nafs qalbu mooy xol maa ngi lay bëgg ci sama xol waaye maa ngi lay bëgg tamit sama nafsu mooy sama bakkan mu daal dina bàyyi ñes nag boobu nag boobu daa kowe mu ne raaytu ko yowmal jami abdan wa sayidan waqad kunta qabla alqabli fi hadratil quds gis naa la ca daj ga xool yàlla yëpp dajee abdan nga nekk jaam ba pare wu sayyidan nekk sant gis nga lii xam nga li muy firi hmm. mooy li baxtari yi waxoon ba muy tagg waaje danaw tatawaadu an wa alawta qadrat fa sha'na kan xifaatun wa irtifaau kazaka shamsu tabhudu an tusaama wa yadnu dawu minha wa shu'aau mu ne danaw tatawaadu an mu ne yow dangaa jege hmm. tawaadu an ngir sa suufelu jaam nga xam nga ne doo buur doo dara jaam nga moo tax da ngaa jege ku yóot rek laal la waaye alaw ta qadran kawe nga de kawe nga ba kenn mënu laa jot kazak mu ne noonu yow yaa ngi mel ni yaa ngi mel ni jant danawta tawaadu an wa alawta qadran yow ñaari mbir nga am fa sha'naaka inxifaadun wartifaaw fa sha'naaka sa ñaari mbir inxifaadun moo ne ngaa wàcce sa bopp wartifaaw te yàlla yëkkati na ku yàlla yëkkati rek mu wàcce bopp waaye képp koo xam ne da nga <laughs> yëkkati sa bopp yàlla wàcce la moo tax yonent bi neen izaa raaytumul mutakabbiriina fa takabbaru alayhim mhm. wa izaa raaytumul mutawaadiina fa tawaadaw lahum su ngeen gisee ñu rëy rëylu rëy rëylu leen seen kaw mhm. su ngeen gisee ñu wàccee seen bopp wàccee leen seen bopp seen kanam waaw rëy rëylu ku rëy rëylu soo ko gisee rek yonent bi may na la rëy rëylul ko am pour wan ko ne rëy rëylul dara ndax borom xam-xam yi nee nañ borom xikma yi nee nañ nit su rëy rëyloo mooy firi ne day mhm. a foor ci ko li yàlla sàkk mooy nit yow soo réy réyloo ci kaw nit mooy firi yow ak yàlla mm-hmm. moo tax nag mu ne Baye Niass yow yaay abdu waaye yaay sayidu mm-hmm. aha kama kunta qabla al qabli fi hadratil qudsi gis nga de Baye Niass wax nañ ne yonent bi shaanu la Cheikhu Tidiane shaanu la waaye Baye Niass mooy ñetteelu shaanu mm-hmm. mooy bi Cheikhu Tidiane dafee te jël yi Baye Niass daal génn ah. te ñun rendez bi gën a rëy bu ñu Cheikh Tidiane jox bi fi ñëwee ci àdduna mooy taati faydatu ala <laughs> bi gën a ba muy dem rendez mu bi gën a rëy bi mu ñu bàyyee mooy am na lu ñuy def fay dana ñëw xam nga su yemoon fii sax mu mu xaw a yomb sax waaye def ne sa yabruzu rajulun encore hmm. eh taati faydatun ala ashaabi faydatu nakira la fayda nakira la mooy ba benn benn mbambulaan buy jóge ci péyib yàlla gi di wàcc hmm. dana ñëw faydatun mais rajulun tamit nakira la hmm. benn góor dana ñëw nekkul sax di wax góor gi yaa ngi léegi ne diw la de def ne sa yabruzu rajulun góor dana ñëw sa yabruzu bi na taayifati ci taayifa tijaaniye ci mbooloo tijaaniye gi góor googu wallahi gën naa ci yàlla laa yorofu fi dunya wala fi waaye nag benn ziyaare bu ko taalibee ñëwoon ziyaare Medina Baye kaset yaa ngi fi mhm. Baye nee ne war nañu xool góor gi mooy kan oh. waaw xam nga nit ki tamit su nekkee ne yàlla def ko may maqaama goye du soxla mu toog di wax eh kaay man maay nangam <laughs> bàyyi rus na loolu soo gisee ñuy gàmmo di toog toog di wax gàmmo bi daala ndax yonent bi defu ko yonent bi mënul wax nit ñi kaay leen màggal ma <laughs> ñoom dañoo dañoo feebar <laughs> moo tax ma ne gars yi bàyyi leen ñu nekk ci bi daala bi daala ñuy gàmmo waaw nañ des foofu di wax bi daala rek ñu ñuy gàmmo ñu xool résultat ban résultat mooy génn ñun nañu bëgg yonent bi di ko màggal rek ñoom nañ wax déedéet màggal bi bi daala rek bañ dajeeg yonent bi ñu xool kan kan mooy ëppale ah moo tax eh, liñ jàng mooy iblis ba yonent bi juddoo dafa am naqar ci juddug yonent bi wa ann ranna lainu lxibbu yaxduruhu junuduhu wa huwa rididun min asadami du si baxaajma si na ko maanaa dafa jooy moom iblis hmm? léegi nag su nekkee ne juddug yonent bi saabu bu ñëwee rek am ñoo xam ne seen xol yi yi seen xol yi day métti lu leen di neex rek mooy bind ci réseaux sociaux yi di jalkati di wax ne képp ko màggal am nga bàkkaar màggal di dugg yonent bi ku ko def am nga te ñi ñooñu koy wax am na koo xam ne su anniversaire am ñëwee day woo gars yi rey ay ginaar yow sa anniversaire ñëw nga rey ay ginaar woo say xarit ngeen noos anniversaire rasulullah oh! man law laa lam taxruji dunia min al adami koo xam ne su nekkoon adduna du génn anniversaire am ñëw ngay bind di loolu bidaale loolu bidaale ñàkk fay hmm? moo tax nag euh, misri beneen beneen euh, beneen beneen chaanu bi bu mujj bi bu mujj bi ci bésu yàlla yi hmm. ñett la rek bésu yàlla yi ñett la rek hmm. si ci cadre gi may wax yi hmm. mooy beneen bi mooy hada maqaamun sha'nuhu laa yurafu fal awliya minhu jami'an waraf yi ay mbir la bi yàlla waxee kuntu du xam ngeen kuntu ñaata la kuntu bañ ko limee ah kuntu ñaata la kuntu soo ko limee ci la kuntu kanzan xam nga yàlla moo leen kuntu kanzan la mu waral ndax 470 la. kuntu kanzan man kanzu laa woon koom-koom la ba mu ne kuntu. booba la bés yëpp génn bés yi amoon na kon subunun yubdiha wala yabtadiha. Hmm. Hmm, subunun yubdiha ay mbir la yoo xam daf koy feeñal waaye du léegi la tàmbali. Hmm. ndax kuntu su nekkee ne 470 la. تولي من الله أك محمد أك أحمد أك إبراهيم كاسان سان تيسلا الله أك محمد أك أحمد أك إبراهيم تولي من كاسان سان تيسلا مو يكون تبايا لنا يكون تنكون نار كن زن كم كم لم أعرف كن خم لك بام نكون نار بابا لم يأتي بس يتحاو ما تعبني بوري على في القرآن سابو في القرآن بايا جت كل يوم هو في شأن كل يوم لا ولا كل يوم كل يوم ده يوم جانغونا يا الله والله ما بيجي ah kulla yawmin huwa fi shaan bépp bés huwa yàlla fi moo ngi ci biir su ko waxee am ku ko laaj yan mbir yooyu ñooy yan <laughs> ah, mu jaaxle saa bu firee ba yegg foofu rek am ku am ku def te jël lii rek xam naa xëy na xadir la xadir day def yooyu def te jël lii rek ne ko yan mbir mm-hmm. chaque jour man yàlla maa ngi ci mbir mu ne ko ban mbir waaye xam nga ko mu tëdd di nelaw rek ba yonent yàlla mu Muhammad ñëw ci moom mu laaj yonent bi ci gént gi mu ne man daal am na ku may laaj su ma ne kullu yawmin huwa fi sha'n chaque jour rek yàllaa ngi ci biir mu laaj ma mu ne ma ba ban mbir la yonent mu ne ko su la laajee ne ko shubunun yubdiha wala yabtadiha ay mbir la yoo xam daf koy feeñal léegi waaye du léegi la am amoon na ca azal waaw muy firi rek ba waa ji laaj ko mu ne kulli yawmin huwa fi sha'nin chaque jour yàllaa ngi ci mbir mu ko yan mbir mu ne ko shu'unun yubdiha wala yabtadiha waa ji ne ko salli ala man allamaka jullit ci di la ko xamal jullit ci di la ko xamal léegi di la xam na yi yonent bi saa sallam moo ko waaye waaja wax na ko rek wax nañ ko ko waaye xamul xamul xamul mbir yi hmm. mbir yi soo yeggul ci bàyyi doo ko xam mukk mbir yi laa wax mbir yi shu'un yi yi ah. waxuma la mbiru xaalis waxuma la mbiru tukki la yooyu mbir yi may wax waxuma la politique mbiru mbiru yàlla ci unul xaq ñett ñett lañ rek yaa ngi dégg de mooy fa innaki jamun xaysu anti si unu mooy shaanul xaqi ramzul kawni faydullahi aynullah mooy ban hada maqamun sha'nuhu la yuraf boobu moo ngi ànd ak bàyyi ca raw da Cheikh Tidiane mu ne hada Cheikh Tidiane mi maqaamun maqaama la moo xam ne sha'nuhu mbiram maqaama daa am sha'nu sha'nuhu mbiram la yuraf kenn du ko xam fan awliya minhu jami al gharab wali yàlla yëpp ci moom lañ naane kon Baye Niass li ko bisi loo ko innaka fa innaka shamsul xaqi sharqan wa maghrib yow yaay jantik dëgg gi ca penku yow yaay jantik dëgg gi ci soow fii ñu nekk fa inna bi hamdillahi fi maghribi shams sant yàlla bi ñu yàlla boolee ci maghribu shams suñ demee ci bàyyi dañuy wax li misi di wax rek mooy daawtuka lil awlaadi wal ahli wal nafsi wa li sahbi wal ahbaabi wal qutri wal jinsi daawtuka maa ngi lay woo yow Baye lil awlaadi ngir sama doom maa ngi lay woo ngir sama doom yi wal ahli ak sama mbokk yi wal nafsi ak sama bakkan wali sax bi maa ngi lay woo ngir taalibe yi wal ahbaab yi ak soppe yi wal xutri maa ngi lay woo ngir région bi sama réew wal jinsi ak sama xeet moo xam séeréer la pël la naar la yaa olof maa ngi lay woo ngir xeet fa kulliya yaa xawsal anaami xaqiqatan wa kulliya fi lmaana wa kulliya fi lhissi yow mi nga xam ne yow la yàlla yónni ngay ramu mbindee nang ma nekkal yaa yaa ngi dégg nga nekkal ma ci maanaa mooy ci baatin nga nekkal ma tamit ci hissu mooy ci lu feeñ mm-hmm. wa xuz xaatiri mm-hmm. mm-hmm. minni ilayka wa kun li shafian fi lmawaqifi li shafian ma ramm fi lmawaqifi kulliha ci mboolem yow bàyyi ñes ma ramm aha wa xuz xaatiri minni ilayka gis nga sama xaatir may xalaatee sama xol lii xalaat téye ko nga delloo ko ci yow fekk dootuma xalaat oh. nekk sama wéttal ñoo ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal incha allah yàlla nañ dem ci gàmm gi jàmm ñëwaat ci jàmm ñoo ngi ñaan yàlla ni ñu doon yàlla di mayee taw bi yàlla nañu yàlla mayee taw bi man wala bu ko raw waaw ñoo ngi nuyu suñu suñu wëllëre suñu xarit ki nga xam ne mooy suñu njaatige njaatige Mouhamad Touré ñoo ngi koy ñaanal yàlla moom gàmm gu nekk macha allah day sonn ci ñu lool lool day sàmm wallahi wallahi yàlla na ko yàlla fay coono yàlla na ko yàlla fay coono bàyyi waxoon gars yi rek law la du aaw la xabantumu ni su nekkuloon ñaan konoon da ngeen ma gañe waaw loolu la su nekkuloon ñaan konoon tuuti gañe nañu ba pare ndax teraanga yam ñuy defal ñoo ngi koy ñaanal comme ni ñuy ñaanalee Mouhamed Jombana mi day sonn si ñun lool lool lool te li gën a neex ci coono yi coono la yoo xam ne daanaka ñu bëri si nit ñi duñ ko yëg daf koy def rek ngir yàlla nga yëg ne noonu lay sonnee ci keneen te fekke sax moom du la ko wax mm. xam nga ndeysaan tabe gi ci gën a neex mooy koo xam ne ndeysaan euh, day def te du ko yëgal kenn moo gën a gën a rëy ci tabe la yonent bi di wax rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa axfaaha mm. hatta la taalamu shimaaluhu maa tunfiqu yaminuhu waaw koo xam ne dafa saraxe ci ndeyjooram nëbb ko ba càmmoñ bi xamul lan la ndeyjoor di def ñoo ngi ñoo ngi nuyu daayira yëpp ñoo ngi nuyu jigéen ñi nag jigéen ñi maa ngi maa ngi jottali sama ngërmaani ci yéen macha allah seen coono mm-hmm. li ngeen di def yëpp maa ngi koy yëg macha allah depuis ci bagage bi bana yeeg mm-hmm. ah li ngeen di cotiser noonu mm-hmm. day faatu jaw ñun suñ cotisation bi ñu nag ñoom Sandaga ñoo yemoon ci a ah, addiya bi fële ca kaw la muy cent quarante quarante mille cent cent six cent six cent six cent quarante mille noonu mm, six cent six quarante mille par ah, yàlla def euh, mu yokk ci beneen dix mille mu nekk six cent cinquante mille pour rek ñu raw macha allah pour raw rek mooy xalaat loolu waaw yàlla na ko yàlla yokk ci barka alquran yàlla na ko yàlla yokk ñoo ngi ndokkeel oustaz Ibrahim gi mu def démb ci eh, RDV yaakaar naa RDV yaakaar naa ku ko bëgg a seetaan ba su gàmm nga lañ ko lañ koy war a teg incha allah ci yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi oh. eh, eh, dafa am benn mbokk mbokku taalibe ndeysaan bu waxoon fan yi naa ko jàngal euh, kaamil waaw ndeysaan man tamit ma fan yi yëpp ma ma ko doon jàngal ndànk-ndànk ñaari ñaari kaamil bëggoon na lu ko ëpp waaye waaye mënuma woon paas boobu ñaari kaamil léegi ma ne woon après su ma ñëwee fii rek ñu jàng xatmu bi incha allah ba barkeelu ci seen làmmiñ ndax su ngeen waxee amin rek dafa mel ñu ñëw ñëpp ñoo bokk di jàng kaamil ndax yonent bi def ne daa iwul mu am minu daa iyaan waa kii ñaan ak kii wax amin ñaari ñaankat lañ waaw ñoo ngi nii Oustaz yi moom ak daayira ñoo doon ànd waaye jamono yi dama ko bëgg xëcc rek ma ànd ak man incha allah ñun suba su ah, tey si guddi lañ war a dem Kaolack incha allah ah, ndax dañu am ko jënd ñoo ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di wax nag mobilisation bi nag daan mel rek noonu rek la incha allah am na ay xalaat yu ñëw yu bees te xalaat bu bees toujours day defar waaw mhm. ah, xam nañ ne xalaat yi defar ko a jóg dinañ ci xalaataat incha te lépp li li gën a yembati ak li gën a yomb rek moo tax ñu ñuy xalaat loolu incha allah kon nag hmm? ci ci liggéey bi tam waaw liggéey bi tamit euh, ñu jéem a góorgóorlu dimbalante ci ndax mbir mi soo ko bàyyee kenn rek du sotti hmm. waaw mbiru mbooloo la kon mbooloo mee war a jóg ñoom ñëpp bu ko kenn bàyyee kenn hmm. ku nekk rek foo nekk rek jàppal na incha allah liggéey bi dañ cee war a jàpp pour bu mën a sotti hmm. te Baye Niass radiyallahu anhu moom mooy suñu sëriñ euh, ma ño utu ñu la lu dul ngërmande hmm. ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ngërmande ci hmm. barke alquran ci barke yonent ci ma nga xam ne moo tax ñuy ñuy dem di sonn kon xaaral ma jàng xatma bi rek ñu wax amin